yóbbul ma Boy Ndiaye ah. Boy Ndiaye acca ayca sënd bu ndaw. sënd bu ndaw wala sënd bu ndaw. sënd la wala. lu di. di di futeeku di lay mel ni ku nii ah. li mu ngi wax ak man sax di tiit. ay wax ak man di tiit dalal sa fit bi. nekkal nit. nekkal nit man góor yàlla laa de nekkal nit. avant loolu damay nit ñu fi toog nii ñëpp xam nga di nuyu Sénégal ñëpp xam nga di ñaanal prisonniers yi quoi xam nga fa ne li xew si kaso bi métti na trop xam nga da bëggee sama booy fa nekk yëpp ku si mel xam nga booy fa yëpp ñu ne si yàlla foog seen bopp xam nga waaw noonu la demee nag. ayca waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñu fi nekk ñëpp di nuyu képp ku fi nekk di sama père yi fi nekk sama nijaay yeeg sama xarit yeeg sama morom beeg yëpp mm. waaw di nuyu itam fa ma jógee muy Parcelles Assainies 1 ba 26 di nuyu sama waa koñ di nuyu waa 3 waa mafia 03ème bi waaw di nuyu sama waa dëkk Mbibas Ndiaye Lompul xonko yooyu Jokkul Ndiaye ah Lomp Nand Fall Kébémer bàyyi ma côté boobu noonu yëpp côté Kajoor bi yëpp maa ngi bëggee maa ngi nuyu ñëpp waaw di nuyu tamit képp kuy di nuyu sama waa fan si club Boy Ndiaye waaw di nuyu di nuyu Iboulaye sama grand. waaw di ñaanal ko jour ku lamb ji ku dëkk passé yàlla na yàlla defal ndam sedd yow doo bokk suñu am ndam de. ñeme nga xam a xam ne kii mën. bu baax. booy bii dafa sadik de. kii du bëre. déggagul muñal mi ngi si dina ko dégg nag. ah le six. incha bu la siisee dina ko dégg. nag la dig métti na de boo bëggee dégg zënd boo bëggee dégg dëgg ñàkk adversaire moo boole ak yow zënd jour lamb ji santuma la dara taxawal foo nekk dama la fay fekk jëli la barki ñàkk adversaire dafa doon taamu la fa nga da da ngay da ngay taamu foo nekk naa la fa fekk naa la duma naa la daan maa la mën fuuf sënda sënda ma ak yow di nga xam du man ak yow sënda du tuus doo dara yow ngay tape ngay nefi di actionné sa feeru sa di nga war a ngay laas gille yi nii eh. Eh. nekkal nit. sëñ am sax xam na ne ma la jàpp nga sëñ Asma taxawal. sëñ maa la fay fekk naa la dugal naa la daan dogal ma la xanaa. doo bëre doo daan. barki yàlla du ma yow. Mambay doo bëre doo daan. man see war a wane a dem. doo bëre doo daan. dinaa dem bàyyi leen ma xel. man la Boy Ndiaye eh, man la Boy Ndiaye. ñu naan ma Bilingam le pipi de l'arène barki alxuraan le 6 incha allah rabbi du man ak yow. sëñ maa la bu doole su li may des li may si làmb doo ko des si làmb. nga. gannaaw may du may mën a yow yow tapet nga. da ngaa ñeme yow. <laughs> yow am dinaa ñëw nga woo Fami Ndiaye waa diwlin Sador ak waa Macron Sador kaani acca booy woote jaarale ak boo Ndiaye bi laa jaarale yow acca booy woote ah dëgg nooy bi biir yooyu yow sëñ bi su ma la jàppee nga xam ne lii du làmb ah, sëñ bi ah déggoo ma sànq rek sant ma la dara taxaw laa dëgg damay for lekk for jaay naa la duma dama lay wax eh sëñ man lii daw si man daw si yow barki alos laa dëgg damay for lekk for jaay li ma làmb jaral jalu jàmbur li may li may def si doo ko def si làmb ah li may des si làmb doo ko des si làmb li may des si làmb doo ko des si làmb. bu for lekk for jaay. waaw ah, baax na incha allah am na solo. waaw loolu am na. waaw kan moo toll nii waaw kaay ni ma wax la kaay ñu waxtaane ko. man moom moom xam nga man xam nga kañ laa dugg man moo na wax nekkal nit li ma lay wax chaque jour rek nekkal nit jënd. Ah. Ah, waaw. soo bëggee dégg-dégg soo bëggee soo bëggee dégg-dégg ma waxoon leen mu xam ko man kañ laa man kañ laa man kañ laa dugg nii nekk si ikiri nii doo doraat ah barki yàlla yàggul de tabaski bi paase tabaski bi nii tabaski paase laa njëkk laa laa waa kay waaw yaa ngi nii boobu noonu boobu moo nekk sama premier ta boobu moo nekk sama premier muy nekk foofu du dara nekkal ayca boy mu bàyyi la nga woote waaw moo daan damay woo ñi nga xam ne nii xam nga la santal wuyu santal seigneur wuyu na nga fexe ba bind fi lu yam nag waaw moo daan li mu bind bëriwul nag xam nga maa woo sama waa koñ yëpp xam nga la di wax sama papa sii di soxna borom tailleur bi di si jàpp xam nga isa tailleur grand am xam di bëggee waa terminus jël nuyoo bi di ko teg si loxo Alpha xam di bëggee waa Mboos yëpp bund ko xam nga waa for lekk for jaay bi xam nga di bëggee mafia bi yëpp xam nga di bëggee waa Fouta xam nga waa Patulaan Moussa Ndiaye Nixon Thiat xam nga la sama kii sama seexu yàlla yi xam la di bëggee ñëpp mm. moo daan def barki alxuraan kii bu ma ko jàppee mu daanu. kii xamal laa ko bëgg xamal xamal laa ko bëgg xamal xamal laa ko bëgg xamal na bàyyi jigéen ñi na bàyyi jigéen ñi. kii ah kii mooy Modou gën ne comédien kii xam la def barki alxuraanu karim xam fa la pengu bu féete fii nii billaahi barki alxuraanu karim amoo téléphone billaahi amoo téléphone laaj promoteur bi. sama téléphone rek la may wooyu xoolal mu may envoyé téléphone naa mu di ma envoyé kii mbër bu ngaaka la kii moo xeewi kii di ma envoyé ay numéro gel naa ma kii di bàkkal yow kon daan naa ci yow barki alxuraan bubsu lay waxal bubsu bubsu lay waxal sënd sënd kontaan naa si yow toog toogal. waa léegi baal jàmbur woote. barki alxuraan karim su fekkee jigéen bi sama koñ la baal loolu génnal ci gàmm boobu. may dama waaw. maa ngi jégalu maa ngi oh, maa ngi sant maa ngi maa ngi woo képp ku may jàppale Boy Ndiaye maa ngi woo tamit sama waa famille. waa Alima Jigéen famille Alima Jigéen Ndiaye képp kuy famille Alima Jigéen Ndiaye maa ngi lay wooyee jàppale ma waaw di sama sama grand Aziz Ndiaye Baye yaa ngi si doon jàpp ñu jàpp si bu baax a a baax di woo Babacar Ndiap soxnaam di woo képp kuy doom Baye Aliou Ndiaye képp kuy doom Baye Jibi mënuma ko xam dégg sama sama rek maa ngi doon jàppale sa farak waaw di woo tamit fa ma dëkk mi waa di woo ñu jàpp si bu baax a baax waa maa ngi la woo ñu jàpp si bu a baax di sama si club Boy Ndiaye ñëw jàpp si a a baax grand Waly aw ma sa fay da nga siy jàpp bu baax a baax billaahi di woo tamit Babacar Babacar borom Italie yow da nga siy jàpp depuis Mbapat ba léegi yaa ngi si jàpp. mosoo ma ah, setaan di woo tamit képp koo xamante ne da ngay kii rek di woo ñëpp ak yàlla. xam nga rek xel bi xel bi xel bi moo ko du mais maa sant ñëpp maire yeeg paa yeeg liir yeeg sama koñ barki alxuraan karim képp kuy dégg sama kàddu rek maa ngi lay woo nga jàppale sama combat bu baax a baax. Eh, Boy Ndiaye mi ngi leen woo pour le 6 juillet demal toog bal jàmbur nag demal pour ngeen ñëw jàppale ko ci combat bi noonu la sënd di wootee. léegi nag waaw mu gaaw ñu dem ci Sentel Senior ak Petit Zé. Petit Zé Petit de day bëree bë ak booy bi aka wow yóbbul ma Petit Zé doomu nday bës. combat mbaag njaga euro ki gan la sende signor booy baa ngi booy bi ak a garaaw ko xool ko nag bu baax kaay ni wuy ma kaay ni xam naa li ma la wax combat bi combat bi neex na ma trop ñaari bërikat la yoo xamante bi nii maa lay siyaare bu baax a baax Petit Sène waaw auzu billah gën a ma sant yàlla jul seen bi maa ngi sant sama ñaari waajur di sant ñu fi nekk ñëpp di nuyu ñëpp di sant sama ménager Matar Ndiaye bu baax a baax di nuyu booy ma àndal si suuf ñoom mbës ñoom waaw ñoom pabis gaa yëpp maa leen bëgg ñu nekk si suuf ñëpp maa leen bëgg ñëpp képp ma àndal si suuf rek maa leen bëggee waaw booy maa ngi lay bëggee. delloo siyaar auzu billaahi samiil aliim mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur te nuyu sama nijaay beeg toog te ñuy ñaan